kulay bang yari avanirure aliza mado aliza mahari bogoma kulay bang yari avanirure aliza mado aliza mahari bogoma kulay bang yari avanirure billahi minal shaitani rajim bismillahi rahmani rahim am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu yeen ñépp ku si nekk si turam ak si santam di suyaar ñépp di nuyu waa Sénégal ak sunu mbokk sénégalais yi nekk si diaspora bi fépp fu sénégalais nekk rek jàppale ni Kalifone Sall ak grand frère am sëñ Xaadim fekk na la foofu ne la jàbb loxo euh, di ñaan yàlla nag sunu borom yaakaar naa ni weer bi feeñ na ñoo ko ñu war a tàmbali sunu weeru koor incha allahu rabbi suba ci alxamis gi ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla na nu borom bi jéggal suñu ay baakaar amiin yàlla na borom bi def ñu dugg ci weeru koor gi si bismillahi arrahmaani rahim fas yéene ko eggali ci alhamdulillahi rabbil alamin yàlla defal ñu si weeru koor gi bu mu nekk suñu mujjuteem koor yàlla taxawuñu ñu si yàlla sàmm ñu si yàlla defaral ñu suñu senegal gi sant leen rek gërëm leen di ne ñëpp ah, euh, bon ramadan et puis yàlla yàlla def jàmm ci biir Sénégal donc ki ngeen di gis sama wet kenn dootu ko présenté si réseaux sociaux yi kenn dootu ko présenté Sénégal muy grand frère di xaadim euh, macha allah borom Italie borom YouTube bi euh, jékki tay woo ma rek ne Kaliphone faw ma seet si la rawatina yaa ngi woon si ay tolof tolof ay jamono mënu ma jógee Italie ñëw ba fii te du ma jaar sa kër parce que sama boy nga sama lépp nga. Euh, ma am si mbégte lool nag am si contentement parce que lii mooy yëg-yëg parce que téléphone rek la ñuy yàgg di wax whatsapp mu may conseillé del defee nii del waxee nii ba borom bi dogal temps am chargé na trop parce que xam ngeen ni xat-xatu jamono mais bàyyi na lépp def si ngoon mu ngi fii ba léegi ni gis ngeen guddi na loolu dafay wane ne sama grand frère la te vraiment mun naa ne jam na ma nag jam na ma gën naa am contentement si moom yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla guddalay fanam donc ma bàyyi rek grand frère sénégalais yi di la seetaan si sunu page Facebook Kali TV nga daal di leen nuyoo Kaliphone euh, vraiment di la remercier di la nuyu di souhaiter ñëpp kooru jàmm dugg ci jàmm génn ci ak jàmm yalla may ñu vraiment ñu fekk ko déwén yu bare. di la sante aussi di la gërëm. di gërëm ñi nga xamne ñom ñep ñi ngi tok di setan ak ñi nga xamne war nañu seetaan après. Hmm. man na len sama rak nga. voilà man awma euh, xarma ñang ak kenn. voilà hmm. bu avant sax problème bi ce deuxième problème. sa sœur génnoon àdduna. c'était juste ma waroon ñëw fii voilà loolu rëccoon na parce que fekk mu fon mais mu ñëwee aussi fekk beneen ndogal aussi daal la mhm. c'est juste aussi ñëw fii ah xam nga mhm. présence bi woon la ne même weesu na mais mhm. xol bi mi ngi fi woon quoi baax voilà donc euh, di di la sant aussi di la gërëm di di kontaan ci vraiment ñëw seet si la euh, xat na mais il mm-hmm. fallait deux jours trois yi moo def Dakar moom il fallait benn bi moom au moins mu ñëw kontaan naa donc euh, àdduna amuñu fi dara lu lii dara jaru fi xeex mm. dara fi xuloo mm. dara jaru fi taal jaru jaru fi reyante voilà on a que ça nit ki mën ngeen bañu bokk sax xalaat mm. gis-gis mais boo ko xoolee ñu ñëpp ay sénégalais lañ. dëgg la waaw. Mhm. yow melal lu la neex ma mel lu ma neex. ku mhm. yor couleur bu ne. Mhm. mais bu ñu xamee ne ñoo bokk couleur yi ñu yor. vert jaune rouge bi. Hmm? ak ngëm-ngëm yi am. Hmm? li ñu doon boole même ci tarixa da nga xool kii dana nekk tijaan ki nekk bur ki nekk laayeen ki nekk ñaseen mais lan moo ñu mettre en commun ay sénégalais ay jullit lañ. avant tout ok waaw même ña nga xam ne sax ah ña nga ca jàngu ba. gis nga mbolo bi am andu ak ñun. donc union bobu ñu am Sénégal. wu ñu mm-hmm. permettre kenn du ko yàq. demante bu mel nii nag moom mooy gën a firndeel di ko macha allah kontaan donc euh, vraiment euh, sama xol gën na sedd. Euh, ginnaaw suñu grand frère ñu si bagage yi muy grand monsieur nekk si réseaux sociaux yi di défendre son excellence monsieur le président de la république depuis ay ati at euh, kenn naa tablewul grand frère Khadim. Euh, du tay la défendre son excellence du tay la défendre régime président Maxal? Sall euh, YouTube depuis mon année ay ati à 2017 wa 2017 di son excellence bo ba qui xadiwul tayiwul wax nañ ko ci lu ne na lu ne ndax mais président Macky c'est le meilleur japonais ne président Macky Sall qui ki Sénégal lu dul président Macky Sall ñoru ko. wax dëgg fa yàlla donc gis ngeen ko tey mu ngi toog sama kër. Mm. ñu fas yéene def ak benn live bu gàtt rek parce que guddi na. te dama ko war a yeewi te suba la weeru koor. bëgguma ko fi tee lu bari donc xam naa ne rek live bi tey dañ koy seddoo ma moom. Mm. Euh, li may bëgg laaj grand Khadim Gueye en tant que sénégalais. Mm-hmm. Euh, tey lan moo la poussé. Mm-hmm. leader politique yi bëri nañ ci Sénégal. Mm-hmm. te it doo xale bu ndaw. nga ñëw ne yow sa vision. kenn nga ko. visé mooy président Macky Sall lu tax président Macky Sall. président Macky Sall parce que xam nga nee la man maa ngi lay wax sànq 2017 2017 ñu bare surtout réseaux sociaux bi kenn ñi mun naa ne à part man yi Koura Macky ak Daba Macky xam nga ñoo doon nekk di jéngu xam nga boobu metti woon na ci réseau bi. parce que bu ñuy waxante dëgg aussi président ak li ko wër bu ñu ànd ànd dañoo sous-estimé woon li nga xam mooy réseaux sociaux yi. voilà moo tax ñeeta sax am doole man a instant boobu laa jëloon ma créé woon benn format bu mu tuddoon opération jant bi xam nga lu tax ma tuddoon ko noonu def naa ci trente vidéo yoo xam ne si bu ne une heure de temps te vidéo bu ne quatre réalisations mais je te parle de 2017 mhm. dama doon dem ci village yoo xam ne turu dëkk ba bu ñu la ko waxoon tey yu ci bari doo ko xam kenn du ko xam Macky Sall réalisé affaire yooyu ma dem loqati yooyu ndax ñëw naan def na def na ñu bare xam nga surtout ñun ñu ne ci diaspora bi yow nekkoon ci diaspora xam nga nu mu demee. Mm-hmm. luy xew Sénégal boo fi gëjee tuuti ñaari at rek boo ñëwee fekk mu ko même sa quartier bii xam nga gis nga changement day am. dëgg la ok donc man ma doon xool di ñëw chaque année di gis mais ñi nekk fee dix ans wala huit ans yoo xam ne ñëw ñu Sénégal du ñu woon gis. Mm-hmm. ma ne léegi xam nga nu may def damay dem ma jël réalisation président ma ñëw tegal leen ko nii. billaahi wallaahi watallaahi kalifam hmm. Sénégal dañ mënoon woon ne est-ce que Macky Sall moo def lii ay village yu yu kenn xamul fu mu ne hmm. courant ba seen forage yi dafa leen ko foofu laa départ woon nga tey ñu ngi naan TER beeg BRT xam nga yooyu dafa dafa yu mujj la quoi hmm. mais Macky Sall lu mu def ci àll bu moo gën a grave gis nga temps yi gaa doon nekk fi di coow ay troisième mandat affaire yooyu àll ba la dem mu déglu leen ñooñu voteel ko mu dem defal leen te waa Dakar yëguñu kenn yëgul man nag yooyu laa demoon di ko loxo def ci trente vidéo jël ñetti vidéo nag muy trente trois ma dej ko Marème Faye Sall ak fondation servir le Sénégal ñu bari doon wax alalu Sénégal lay jël di ko yàqate di ko lii mm. nanga nanga mm. ma tegal leen ñetti vidéo ci Marème tagal leen fondation bi xaalis bi fan lay jógee du xaalis Sénégal du seen xaalis te moo ko jël même bu doon xaalis Sénégal. mi ngi koy jël di ko joxaat Sénégal exactement donc mu am solo looloo taxoon man ma jàpp parce que dama gëm koo xam day jëf. Hmm. man koy wax ay waxi kese. Hmm. lijjantiwuma ko. mooy hmm. li xew tey. donc mag yi te la ma demoon 2017. gis nga boobu ba léegi succès la parce que affaire day yokk boobu teer amagul woon. Hmm. BRT amagul woon euh, Ila Touba amul woon mais yooyu yëpp ñëw na ci diggante bi. mu taw donc bu hmm. dee nag gouvernant dañ ko soxla. pour muy liggéey muy réaliser. Hmm. lan mooy ndax nag koo xam mu ngi liggéey di la defal ngeen ciy teg. bilan bi moom def naa opposant bi sax gis nañ mais lan lañ soxla ci président loolu lool boo ko amee looy doyee keneen. kon nag. dafa na né li momu ci dool sama conviction xamné mën na du coow waxam wul jëf ja bari lool man lool la gëna gëm li momu ci ma sha allah donc euh, xarité ak am di jàmm yi ñi di seetaan euh, live bi tay gis ngeen ni ala dawme na parce que kiñ fi toogal kàngam la ku dégg ay kàddoom xamna né ki du chomo euh, ma sha allah sénégalais yi bari di ko béggee nag wax dëgg fa yalla

bu la doon la tey président Maxal Sall bi mu jëlee réew mhm. euh, ci 2012 ak tey 2023. Mhm. est-ce que def na. Mhm. wala deful xam naa ni di nga ma tontu def na. non lol c'est clair def na parce que dañuy naan asamaan see ni nii nga ne gisuma asamaan loolu foog nga soxorte xam naa ni yow soxoroo. def na moom def ni question boobu dama koy sax tegee wet. Euh, nan nga gisee nan nga président bi ñu émergence. est-ce que tey euh, réaliser nañu émergence bi. émergence bi. Macky Sall boo ngi koy réalisé gis nga deux semaines ci ginnaaw. Mm-hmm. man ak honorable Koura Macky ak Aïda Patra dañu ànd ak président ñu dem seeyu def naa samay vidéo gis nañ ko. réalisé mm-hmm. foofu. gis nga bu ñu demee foofu am na loo xam bu ñu la koy wax ci Macky Sall te yow ñëwoo nga gis. ak sa bët. Mm-hmm. di ko gis ci télé rek doo mën a comprendre. mais ñun ñu nekkoon foofu sur place. xool réaction nit ñi di déglu di dégg. jeunesse bi ñuy wax ni. ak bi leen président recevoir rek ak. li mu leen defal ak prospective yi mu leen tegal. Mhm. xam nga lu ma. Mhm. waxumaa ne li ne fii moom xam nga lu ne fàng kenn du ko jeex. mooy loolu xam nga. Mhm. gars yi mënuñoo suul ker. gaynde day leer. Macky Sall ay réalisation. kenn mënu si ko. Euh, mën nañ ko attaqué ci lu ne bu mu des. ci ay réalisation bu nekkee fi di ko lim. waaw mais dama gis Sonko keroog y' a même pas une semaine. néna présent président Macky Sall amul bilan def fi dara waaw. looy tontu si loolu. mais loolu li mu ciy tontu mooy ay gaayam ci boppam dañ nako ko bam len nam ñu ne xoral wax nga safaanu deug hmm. manam da ngay katchi hmm. gis nga waxal Macky Sall lu ne. Hmm. attaqué lu né nil ay dictateur laak seen chance yu ñuy wax mhm. mais que réel liggéeyul lan la fi lan mooy bilan kooku moom mooy vraiment rusloo sa bopp ku taxaw fii naan Macky Sall réalisé wul kooku moom vraiment ay gaayam sax mhm. ñoo ko war a tontu mhm. kooku moom dafa naa ne bilan bee tontu boppam fu mu tourné moom moomu di voyage sax yoon yi muy jaar ak yi muy aw ak <laughs> hôpitaux yi ñu koy yóbboog lépp bërki dem dégg naa ko mu ne moom dem du faju ji àll ndax fii am na structure yëpp donc reconnaître que ne même santé bi ñu mais ñaata hôpital bi Macky Sall def. mais bu wax ci éducation. hein bu wax ci njàng bi ñaata université yu bees la fi Macky Sall taxawal. Ah. toutes ces choses là mais ci 10 ans. Mhm. mais bu doon yow 10 ans yu bilan bu toll ni, mais Sénégal romone na Paris. donc euh, dégg nañu suñu grand Khadim Gueye sha allah cadre yi li mhm. euh, grand Khadim Gueye euh, tay ñu actualité. dëkk

li ñuy wax ay wër wëral ak dugg na fi génn bu demul woon Sweet Beauté hmm. histoire de Adji bu du du am ok ok ñaar hmm. bu toogul woon jàkkaarlook Sénégal yi yëpp accusé Mame mbay Niang hmm. lii yëpp duñ ko ci woon topp mais ñaar yooyu ma la wax yëpp benn bu nekk gis nga lan la coûté Sénégal de milliards. te loolu xam nga ne booy bu fekkoon dañuy génn mu ne xale yi génn leen parce que dund bi dafa cher. courant bi cher na gaz bi cher na ndox mi cher na ma d'accord waaye man maa jiiñ nit ne yor naa ay preuve nit ki ne la e eh, sawaay man dama yor njaboot comme yow yor jabar yor doom yor ndey yor baay yor ay frère ay sœur yor ay mbokk mhm. boo toroxalu say mbokk lu tax nga ñëw di ma jiiñ vingt-neuf milliards ne man maa ko sàcc mhm. à part que ministre d'état vingt neuf milliards du jaar ci loxoom duñ la woo comme sa néeg bi Californie. Hmm. nga ñëw ñu teg bale bi la kontaan. Hmm. de ministre bi signature la am. amul benn ministre boo xam ne xaalis milliards yu ñuy jox day ñëw ñu koy wàññil ci néegam wala ci bureau. ok voilà donc vingt neuf milliards boo dem woon sax yow jox nañ ko vingt neuf milliards. dekaawe na deux milliards nga mën ne ok vingt sept yi def na ko fa wala vingt huit ya mais yow nga ñëw mën na la jox vingt neuf milliards Californie nga jël vingt neuf yëpp daf ko sa poche mm. dem toog. Mm. ana projet ba affaire <laughs> yi mujj. te amul trace te amul trace. Mm. amoon ne banque bi ne dara jiñ na fi moom mii. ma ah nu mu tuddati Maam Mamour Diallo. Mm-hmm. quatre vingt quatorze milliards. ne yor na preuve yi am na trace te banque banque yeeg compte bancaire yi tous amu ci génnewu fi dara. alors yooyu nag ñooñu dañoo am seen ay famille mm-hmm. comme moom ni mu amee famille mm-hmm. fan yi ñu naan noonu dañ koy toroxal dafa am jabar dafa am ay doom mm-hmm. mais Mame Mbaye Niang amul jabar amul doom Mamour Diallo amul jabar amul doom ay mbokkam bu ne da xeex pour la bien yu Sénégal. dund bi cher na lii daf da xale yi amuñu liggéey bu la neexee sax nga bañ a gis la ca Macky def. waaye nag yow ma jiiñ la nga jiiñ ma lu ci yoonu Sénégalais yi ba naan booy génn leen. Mhm. bañ yàq ay magasin jàmbur yàq ay butigu jàmbur pour lan. te li ci gën a ñaaw ma dékku dem mu leen di encouragé. li yàqu ci dëkk bi bari na. waaye xale yi gën leen a yàq daal maanaam bu ma leen wooyee le trente wala beneen jour. mais loolu au nom de pour une question personnelle. kooku wax xeexalu Sénégal. ay gars mi du leen neex mais ñoom seen bopp xam nañu seen waa ji dafa juum. Mm. ba juumati. kilifa nag am na béréb béréb yoo xam ne waru faa taxaw. ok lu mel ne sud boo tey def naa yow miy ruus nga ñu la fay gis asuma nga am ambition nag war a yor Sénégal gii mhm. am na bërëb yoo xam ne war ngaa jomb di fa teg sa tànk mhm. ba dégg ñu naan dem nga di fréquenter bu ñu la fay jiiñ kii que lumbal doom wala bu amee nga dégagé wu ci groupe nga dem ba seetal sa der après nga ñëwaat ci parti bi mais mhm. mënoo ñëw jël doomu jàmbur yi téye sa doom sa kër boo woowee booy place de l'Obélisque yaa ngi lijjanteeg gendarme nu sa doom demee jàng ji doomam jooy dafa gën sa doom wala sama doom alors lan mooy ndayu loolu. dem bu dégg naa ko mu naan ndax ñun dañu war a defar seen wayu doom bu ëllëgee seen maam ci xeex bi la nekkoon xeex leen mais ay doomam seen maam xeexul doom yooyu xeexuñu seen ay sët. dañ naan surtout Californie moo doon xeex xeex ba. Mm-hmm. surtout Xaadim Gueye waaye duñ ne surtout Ousmane Sonko. Mm-hmm. dëgg neexul. ndax doom yooyu dañoo dem fee. di mm-hmm. jàngi sa doom nag mooy yor ay doj ñu koy dóor ay lacrymogène ci mbedd bi ci loo xam ne si waa ji moom moo ko defal boppam question personnelle la. yoonu Californie newu ci yoonu Xaadim newu ci yoonu Macky Sall nekku ci lu am na ñu ne Macky Sall la. pompe nañ ko sax ci biir otoom koo xam ne moom ci stafam la ñu bëgg koo jiiñ Macky Sall. Macky Sall daf ñu bëgg a ah yu kenn xamul mais Macky Sall toog ba caméra yi taxaw mu yebal ku la rey. Hmm. boo demoon ndànk sa oto Californie. Hmm. yow mii dañ laa woo nga dem tribunal bee. Hmm. ñun la eh il faut nga tëdd un mois da dem tëdd ko ak sa dignité. yaa ngi ni toogaat. est-ce que tën dara toj fi. mais yow nga tooñ. yóbbu. nga ne booy dem taal boutique Californie. Euh, station Californie. nga naan ma ñuy ay militants la ñooñu duñ ay manifestants c'est des délinquants purs. Mm. yoo xam ne si dañu profité ci affaire boobu. Mm. di sàcc. Mm. parce que loolu du manifestation. am na solo surtout nag sa cas personnel. am na solo jaajëf donc ñu bàyyi sunu grand frère mu xaw a souffle tuuti muy sunu frère Khadim. Euh, gis ngeen ko tey sunu laay bi maa moom la. Euh, comme nu mu ko waxee Ousmane Sonko génn na wax na gatsa gatsa gis nañu ay nit ñàq nañu seen bakkan euh, gis nañu ay. oto lakk nañ leen si gis nañu ñenn ñi seen i ay magasin am nañ si ay jafe-jafe élèves yi ñu ngi si ay jafe-jafe jàngiwuñu ñu gis ñenn ci politiciens yi commencé nañu génn di euh, teg seen baaraam ci góom bi euh, dañuy déglu sunu waa ji nga xam ne muy Thierno Bocoum après ñu jàngat si euh, sunu frère lan lay def si jàngatu Thierno Bocoum. du mën a commenter wu kenn commenter wu ma stratégie wu kenn ku ne am na ko droit am sa stratégie. Euh, ku ne am nga droit résister comme ni ñu koy waxee ku ne am nga droit am sa position xalaat na nii nga war a defee donc wax ji nekkul foofu loolu yàgg na fi wax ji fu mu nekk mooy de plus en plus ñuy gis ay xale yu ndaw yi de xale yu ndaw a ndaw yoo xamante ne xamuñu luy benn enjeu xamuñu benn enjeu mais mbir am na génn nañu rey nañ la d'abord dama bëggoon ñu ñu taxaw foofu parce que euh, ñooñu di dee léegi ñu ngi bëgg a bëri parce que mars bële quatorze deewoon nañ si boobu ba léegi defuñu enquête xamuñu kam moo leen rey xamuñu nan la demee maanaam euh, rey nañ sa doom dem nga suuli di ñaan peut-être euh, yàlla may la keneen walla nga muñ ko ak doom nu mu fooree nu mu toll si si si waajur mais loolu dañ koy bàyyi muy continuer rek loolu dañ koy bàyyi muy ne dee bu ñu dee nii ban ban ban lan la yokkal Sénégal lan la yokkal Sénégal en terme de démocratie walla am lan la yokkal Sénégal lu dul ñàkkuloo seeni parents si si rien parce que tey fi ñu toll euh, képp koo xamante ne ne taxaw nga pour xeex ni jiitalal sa bopp d'abord jiital sa njaboot soo bëggee su dangaa jug pour taal mais génnal sa waa kër nga taal sa kër su dee safara bi dafa war a bokk si xeex bi su dee jël alalu jàmbur dafa war a bokk si xeex bi sàccal sa waa kër mais très franchement ça se comprend pas ce qui se passe c'est-à-dire que euh, su dee bilan bi moy tej nañu fi yak nañu yefu jambour jël nañu alalu jàmbur kii euh, ray nañ ko loolu moy bilan bi loolu moy victoire amna na moy mooy euh, ñu ngi avancé ci affaire bi dina baax excusez-moi dafa mel ni waaw non c'est je excusez-moi euh, ngeen ma le temps wifi bi di s'il vous plaît. ñu ngi ok. ñu ngi le temps wifi bi di ñu koy ah. mm-hmm. excusez-nous ah, ah, souvent euh, mu ngi donc ngeen ñu. Euh, donc gannaaw euh xamna ni le temps wifi bi di ki fallait ñu vous tablette binaaw li xew euh, le 16. Hmm? Mm-hmm. mooy affaire boo xam ne affaire privée la. waa ji moo accusé nit muy ñaari sénégale mm-hmm. yoonu sa yonnewu sa doom waajee ca génn àdduna ñi ci yàqal tey bilan bi c'est quoi. waa ji ñëw ne xeex bi dañuy résister mais booy résister da ngay résister loo xam ne c' pour le bien des sénégalais. Mm-hmm. mais pour ton bien personnel kooku yow yaa war dem nga résister yaa ak sa doom say jabar ak say jarbaat. Mm-hmm. voilà mais woo booy jàmbur yi ñu yàq yi fi jàmbur ok am ko ci ñàkk bakkanam ñu dër ko xam nga lu ñàkk luñ ko def naan ko noo ku laal waa ji sànku moo tax ñu dër la amuñu sax yërmande ci nit koo xam ne ñàkk na bakkanam te seen waa ji doon jox gat sa gat sa massa massa la. waaye xeex bi li mu ne di xëcc lii booy yàq sax mi naan leen li yàqu ci réew mi bari na yàqu sénégalais yi weesul nga naan li fi yàqu bari na ah. léegi booy de résistance bi continuer man maa ànd ak yéen duma leen abandonné jamais ci xeex bi mais xeex boo xam moom du ko fekke njabootam fekkewu ko goloom yi mu àndal ñu ne seen ma yeewi askan doo ko gis kenn ba ñoom ñu ngi saagaan gis nga axee ne doon bërki dem xaw ma géej la xaw ma mm-hmm. ni ñuy saaga ces mm-hmm. leader la espèce leader yooyu ñu ñàkk fayda lang ci benn waay boo xam ne tekkiwul dara di fenn guddi ak bëccëg ñoom ñu xam ne li muy wax du dëgg mm-hmm. ñu ne ci gannaawam pour post bu ñu am ëllëg loolu nag bu ñuy jël gisoo fa doomu kenn naa muy abi Seck muy Khalifa Sall ak muy Déthié Fall ak tout ce racaille là gisoo fa benn doomu seen doom ci xeex bii. am na solo donc euh, le temps ñuy kii rek ñu continuer euh, Thierno Bocoum doon yëkkati kàddu yi am solo euh, daal di artu ndaw ñi daal di wax ak tamit kii di Ousmane Sonko te pourtant si opposition bi la nekk yaakaar naa ni politique. mën nañu politique sans kaale ñu rayante sans kaale ñu taal sans kaale ñu dóorante donc ngeen jéggal ñu si courant bi xaw na daw léegi euh, mola Morgan Barsak nous nañ la ak gars yi di partage maximum de partage ñu continuer nos live s'il vous plaît Nous déglu woon Thierno lu excusez-moi excusez-moi la famille Nous hein, ñàkk souvent directement mel noonu xam nga souvent la plupart gars yi dañuy enregistré di ñëw di teg mais lii moom direct la hmm, souvent faw mu am euh, ngeen koy dund lépp en direct mën a comprendre lan lay mi ngi ñëw mais teg dëgg ah yokkal Sénégal en terme de démocratie wala am lan lay yokkal Sénégal lu dul ñàkkuloo seeni part parents yi kese ñoo ci ñàkk ak moom mu bañ a parce que par tey fu ñu toll euh, képp koo xamante ne ne taxaw nga pour xeex ni jiitalal sa bopp d'abord jiital sa njaboot soo bëggee su dangaa jóg pour taal mais génnal sa waa kër nga taal sa kër su dee safara bi dafa war a bokk si xeex bi su dee jël alalu jàmbur dafa war a bokk ci xeex bi sàccal sa waa kër mais très franchement ça se comprend pas ce qui se passe c'est-à-dire que euh, su dee bilan bi mooy tëj nañu fii yàq nañu yëfu jàmbur jël nañu alalu jàmbur kii euh, rey nañ ko loolu mooy bilan bi loolu mooy victoire am na loolu mooy euh, ñu ngi avancer ci affaire bi dina baax mais loolu loolu loolu fan la ñuy yóbbu ne sont nulle part. au contraire des innocents yo xamantene ñu ngi ci dé ay nit yo xamantene sen yoon nekku ci di alal ñu et on veut on veut on veut continuer ça. dit que bonne logique la am Nous ñu bëgg ko continuer logique la am amul ben logique pour lan pour affaire privée lo xamantene ne euh, def nga defuma ñu yoon cest dit que loolu lan nit sa waru si waru si soj sax ba siy dee nit waru sax soj ba siy dee mais mënuñu comprendre ce qui ce qui se passe dans ce pays on a l'impression que mais vraiment nit ñi léegi dañuy banaliser lépp quoi mais xale bu dee quoi mais xale bu mais xale bu ndaw la kooku ku gis démb xale bu ndaw la de rien du tout nous devons le mars bi passé ay d'ailleurs nous. de rien du tout de rien du tout nous avons un xamuñu enjeu mais ça ne peut pas continuer au nom de quoi Ça dit que l'on après pas. imagine ñëpp ay xale nous wala après et après et après ça donne quoi lan lay au Sénégal qu'est-ce que ça apporte au Sénégal mais concrètement ça n'apporte rien du tout ça n'apporte rien du tout mais nous, c'est des combats, le combat démocratique nous mais ñu ñu am xam enjeu au combat Nous ñoo nous a ñoo devant Nous ñu war def ñu assumer mais c'est pas des enfants qui doivent mourir c'est pas des gens qui comprennent ne Ce ñu c'est pas des gens qui xamante ne les seniors, les nekkul ci politique ñu ngi liggéey seen liggéey ñoo ñu war boutique Nous, avons ñu war a nous, ñooñu nous, nous mais bi yoonu au nom de quoi xalé di comme ça gratuitement et ça nous amène nulle part alors que ku il protéger sa njabot lo man protéger sa bop parce que xam nga donc sëñ Xaadim kàddu yi yaa ko déggandoo <laughs> kii mu ngi ci opposition bi mais boo déggee nu mu waxee Ousmane Sonko lay dal sa jàngat si kàddu mais booy bi Thierno li mu wax dafa leer mhm. nee naa la affaire bi mu wax yëpp lu tax mun la booy yi dee boutique yi ñu yàq bagage yi ñu perte yëpp pour quoi mhm. moo tax xam nga léegi bu ñuy xeex bu njëkk dañu doon xeex pour ay idéal mhm. Sonko damay gis muy teg ay Thomas Sankara Thomas Sankara la mu doon xeex Ali Sonko xeex ça fait deux. Mhm. Thomas Sankara kenn mus ko dégg ci affaire du viol. mus ñu ko dégg mu toog fii sosal nit ñu war ko indil ay preuve joxewu ko. Mhm. ok donc ñooñ dañu amoon lu ñu doon xeex soxaluñu woon bien de luxe yi mu yor ak affaire yooyu yëpp lijjantiwuñ ko woon. Mhm. mais tey doomu jàmbur yi ñuy génn ñii di yàq seen alal yi ñu ci yàq mais pour lan bu ñu la laajoon pour lan nga ne non dañu doon manifester pour dund bu cher bi. Mhm. courant bu cher gaz bu cher. mais lan lañ doon xeex lan moo tax ñu yàq butigu jàmbur yooyu parce que waa ji moo jiiñ maam Mbaye ok que mhm. ne épingle nañ ko maam ne ko indil ma dossier bu FBI sax nga tagal ma ko mhm. man ma jox sama bopp police mais lool lu ci jar nga naan booy yi ñëw leen yóbbu maag accompagner ma léegi dem pompe nañ ko pompe ñu ko empoisonné nañ ko empo yooyu yëpp lan moo ko indi bu dema mhm. wuy ji est-ce que loolu dina ci am te loolu beneen question personnelle am la Sénégal lu ci seen yoon ñee ci perte seen ay alal loolu la ci doon wax nii te muy dëkk man li ma jaaxal booy xam nga mooy lan ñooñu les soi-disant leaders là ay Khalifa Sall ak ay Habib Seck ay Aïda Mbodj ak genre yooyu lan moo tax ñuy gën naan dañuy def ay conférence de presse waa ji dañ koy jaay doole ay dàmbooj ñëpp fee bënn oto ba mu neex ko ñëw naan dañ ma dañ ma fetal ak Macky Sall def ma yow dàmbooj ban sens la amal Macky Sall lan la jariñ ci Sénégal ba ñuy wut di ko rey ah et puis xanaa yow bu ñu lay fetalee sax xanaa nga dem woo police wala gendarme ñi def hmm. enquête mais booy da nga dem ci ay vigile ñoom ñoo ñoom ngay dénoncer bu la verle ñoom dañuy fen il ment mal macha allah seen comédie yooyu lañu war a diri xam ne mm. lii ñu def mm. lii dal waa ji donc mm. mais ñu di lu def fii lu ñu tapp ko ah. bu demul won social Mame Mbaye Niang do am suite Beauté bu fa demul won boy 14 e du ñu woon dee. lii moom mooy dëgg bi. amna solo voilà. donc yaakaar naa ni ba légui yene ngi sétane live bi ak Kaliphone Sall jaanook grand frère am grand Khadim Gueye nga xamné ken dot ko présenter fii Sénégal rawati na nak diaspora bi ah xam ngeen grand Khadim mom euh, YouTube bi moko gérer géré donc mu def ay analyse yu pertinent sànq ba légui yene ngi sétane yene ngi déglu euh, yakarna ni lepp lu mu wax ci téré la ko tek donc ba légui rek dañuy continuer analyse fani fan nañu mais gis naa ni sénégalais yépp kaddu gi benn la xamuñu lu ñaaw xamuñu ray xamuñu taal xamuñu yàqu politique dal defal sa choix ne kii laa bëgg. bu dee koku nak day yé fitna dawal ca ba ngay ami tank nga ne ko man fitna arrangé wu parce que ku jëlé réew mi fitna rek gouverner ko fitna tamit. qu'on se dise la vérité donc sinon nit gis nañu suñu ben père mu ngi si tale yi ak si rajo yi euh, di wax lu rafet ci Sénégal muy père Ngol Ngol mhm. dañuy déglu kàddoom rek ñu bàyyiwaat euh, grand xaadim mhm. def jàngat ñu déglu père Ngol Ngol Lila la wax moom te kenn dégg ko billahi bu doon beneen président du du demee nii ñu bari sax dañ ko daan yow ab ragal nga wala lan la li ñuy def ci réew mi nga koy seetaan te pourtant demeewul noonu de te kenn musu koo dégg mu tontu kenn ah xanaa ko koy wax lu la neex te muy président sax te tontuwu la nga fa nga war a dem ba fenn fi nga wutub arena comme yaa koy wax lu la neex te moom tontuwul li muy tontoo mooy dina defaral sam réew te yow lu mu defar nga ni nan dem taali nañ dem yàq li muy defar boole ca sax ñu ca seen yoon newul waa jooju ñu dajji place am sàcc ay téléphone kooku lan mooy yoonam ci ay politiciens yu yuy xiiroo ko ŋaayoo lan moo ci ay yoonam si kaar kaar yooyu ngeen taal Dakar dem dëkk yi mais yéen defee ni euh, ñi ñi taxoon ngeen koy taal ñooñu seeni doom dinañ ca dugg ñooñu seeni doom bu ñuy jàng oto bu rafet la ñuy dugg Macky Sall doomam du dugg euh, bis yéen ñu ko taal yéen a cay dugg fekk tataab jaamur buy daw ngeen taxaw ci kaw autoroute di leen sànni ay xeer toj seeni parabrise te ay sénégalais fekk station boo xam ni ay sénégalais ko moom gérant ba sénégalais la borom station ba sénégalais pompiste ba sénégalais la ba sénégalais ngeen rajaxe ko fekk Auchan boo xam ne ay sénégalais képp ñoo fay liggéey ngeen rajaxe ko yéen li France moom Sénégal bu ko fi génne woon bu suwaa du ngeen seenu wata du dog France a defar carburant yéen bu du woon ak France da wata sax du ngeen ko gis ni lu ngeen defaree yéen welo sax dañ koy jële bitim réew welo puso bi nii ñawee dañ koy jële bitim réew nga defee ni bu doon sunu xam-xam doomu di dinañ dinañ xëy di jële wata euh, horaire yi daw nii dinañ daw wata yi fu ñu jóge ca tubaab ya tubaab yi bu ngeen bëggee tàggoo moom da ngeen di wuti xam-xam waaye du ngeen wuti ak ndof ndof mooy fekk sa alal nga di ko taal bis bobu du alali Macky Sall de alali sénégalais yi la ay impôts Sénégal lañ e ko jëndé wala ñu lebi ko bitim réew pour nga mboké mëna dem hein ay sénégalais dem be fekk BRT bi sax ñi dag fi pour ni na ñaari train dajé accidenté suñu milliard yaqku suñu dom dé yoy sénégalais e ngeen bëgg ñu yor réew eh quand même <laughs> war ñoo sétat suñu bop de bis yooyu ngeen taal seen bopp képp ngeen ko taalal waaw bis yooyu bis yi senegal la du bis yi Macky Sall de waaw léegi nag ginnaaw ku mer yàq ah ñiy defar yërëm naa leen macha allah comme ba léegi rek euh, ñu bàyyi grand Khadim Gueye yaa ko déggandoo père Ngol Ngol mu ngi si 2STV ñu koy nuyu de passage. kàddu mi loo si jàngat. maa ngi koy nuyu di nuyu groupe xeexal Sénégal bi nga xam moom mi ngi fa Matar la ak ñoom ñëpp. macha mm-hmm. ok gis nga Ngol Ngol lu mu wax ak Thierno li mu wax sànq ak ko mën benn parole lañ am en commun mooy. yàq bi fi am ak lepp lan moko waral ñom question bobu lañ amul réponse hmm. réponse moy une question personnelle diw ak diw ñi yàqal seen ay millions toj seen ay boutiques et tout li ñuy wax ñom ñaar ñëpp ak ñeneen li ñu wara a dégg hmm. loolu dénominateur commun biñ am moy question personne lu tax nga may woo doomi jaamu ñu yàq li jamm ci lo hmm. xamne waron nga mëna dem li jëndiko bu doon dafa wax comme loolu ngolgol wax ñoo defar pousse Sénégal ak yépp ñu ne génn ah Sénégal dañuy xam nga manifester parce que dañu war am ay usine dañu war am yuy fabriquer xam nga mais amuñu dara lépp dañ koy importer kooku tey ji bu ci nit mu jar ko waaye diw Ousmane Sonko moo sosal Mame bay wala Ousmane Sonko moo tal otoom kenn àndul la garde corps àndul la kenn dem sud bu bañ jiñ ko lañ fa jiñ yow nga ñëw ñu yàq ci sa alal joo xam yaa ngi ko commencé woon di liggéey de cinquante mille dem ba mu nekk ay millions ñu yàqal la ko du fa jaar ne la salaamaaleykum dajale bu ñuy dajale seen xaalis yooyu ci ay oto yu rafet lañ ko koy jëndale ah mu taxaw ci mbedd yi fu muy dem jaar fa yow mën nga imaginer booy Macky Sall doon génn ne gars yi accompagner leen mais est-ce que Dakar bu bouché. Hmm. donc démonstration de force du question buñ la wayé wuy jël golo yi ñeu top sa ginaaw nga bloquer parce que gis nga droit bi Ousmane Sonko am pour circuler li ñu wax mom mm. mm. nga am ñeu pour ubbi sa boutique bi pour jaay fa lu tax ñu war ko ko jox mom yow ñu xagn la ko tecc sa ay boutique wala ñu mm. yàq ko ndax da fo wara jaar te mëna jaar fo am day wuy ji lan lay jaar di génn ci ay auto melni ay président yi ñu yóbbu kenn xamul di défilé mais ko ce gars là il doit le laisser en paix wala ñu wala ngay teul ay ballu football ak ci tël ay ball di jaay ay géré yooyu ah demal nga wuy ji <laughs> nga satal sa der parce que ñii topp mooy li ma la leader yu ñàkk fayda yi man hmm. damay ñàkk fayda mais est-ce que gisoo yi tamit ñu ngi koy ba ay seeni nit sax ñu ngi sentir ne que vraiment Ousmane Sonko dañ ko délaissé mais dafa dafa nekk lu juste hmm. yow mën nga d'accord man ay Khalifa Sall ak leader yooyu ma la wax Déthié Fall ak hmm. ay ñoom ñépp ñu fa nekk ci Yewwi Askan bi mais lan lañ mën a génn def conférence presse naan dañuy jàppale waa ji ci loo xam ne question personnel ma ñëw di booy yi dee ci njàq bëgg jàmm ñu naan Macky Sall dañu jaay doole. Hmm. ci lan ah, ana doole ja. alors ñoom ñoo war a abandonné waa ji. Hmm. dem dëggal seen bopp. kii il est politiquement mort nañ waxante dëgg. il s'est tué avec ses propres mains. Hmm. alors bu mu ñëw nag jël doomu jàmbur yi leen woo ci mbedd mi téye doomam yee ci këram naan day lijjanti. Ah. bërki dem lu mu dégg metti ma ngay lijjanti doom ji. waxoon nañ ko. ndax bañ a wuy jéem mhm. bañ bloqué sa doom sama doom jàngiwuñ ñu tëj mhm. école yi ndax mhm. loolu mu waroon wuy moom lijjantiwul lool xamul mi non sama doom ngi nii ñu ngi nii di ma humilier parce que dafa war a jàngi si ah. di mais ci dafay yàpp Sénégalais ba jàkkaarloo ñi humiliation doomam lay wax mais gisul doom yi dee sa doom yi war a dee hmm. te moo leen woo génn leen yéen jeunesse bi seen futur mais futur doomam moom mu ngi koy lijjanti. doomam ëllëg mooy nekk li ñëw dem. ci kaso bi bëgg na doomu jàmbur yi wala ñu moom affiché doomam rek bëgg ko. moom li ko ñor mooy doomam dafa war a jàngi parce que ëllëg moom day waaye du discours zéro. ngay woowee gat sa gat sa nga defar sa doom ba mu tarkaala eh. yóbbu mu ngi defari avenir bëgg yàq avenir ah, doomu jàmbur doomu ah, jàmbur xanaa bëggul dara. Ah, bu ñu waxee mu naan ku dee sa yaay jura. Ah, lu tax moom rayul ay doomu ay jabaram jura. jura doy na waay ah, nañu may jàmm mais moom il communique très mal. xamul politique man. yi weesu man nga taxaw. Mhm. Californie sa doom ma ne ko demal place l'obélisque mhm. nga xeex. parce que dama jiiñ benn waaye damay fen sax. Mhm. mais pour nga dëggal ma. mais nag Mouhamed policier mais dimbali sama doom dafa am cours a 10 heures. mais yàpp sénégalais yi. te mi ñu koy def devant les caméras quoi pour wan ne gars yi ko yërëm liggéey woon na sa soxna si dafa waroon liggéey ñu di ko bloqué mais soxna yi jàmbur yow sa soxna bi jaay gerte caaf dafa war a tëdd këram kee mais soxnaam dafa war a jàll mais yooyu boo koy def sax nëbb ko mais doo taxaw ci caméra di ko wax sénégalais quoi mm-hmm. da leen a yàpp waaye daf ñu jàpp ay leader génn naan dañuy def ay point de presse. comédie di naan ay comédie mais xoolal. may leen sant mais mais est-ce que du ma ne alhamdulilah rabbil alamin ba sama ndaw Sénégal yeewoo ba sunu ay yenn pape. yaakaaroon ne waa ji dañ ko tooñ ndeke finalement bañ defee jàngat waa ji mooy tooñkat. parce que mon keroog dafa woote manifestation le 14 le 15. C'est 46 départements. Ah. ñu gis c'est 46 départements yi. mën naa ni 3 départements moo <laughs> yëngal. mooy Dakar. il yenn gox yi la ci Dakar. mooy peut-être Mbacké yenn gox yi la ci Mbacké ak ca Sédhiou je ne sais pas Bignona. loolu est-ce que du defe vous te image yi Vous xool gis nga image yi gis fii. yow mii gis nga ko. Mm-hmm. ku mel Babacar Touré xam nga élément wañi la mhm. babacar touré dem na bëna image yi tek fi yi du sénégal 1 yenn yi 2021 lool ñukoy pass passe comme dakar mi ngi tak ta dara amu ci manipuler di manipuler c'est une forme de manipulation babu touré moo ko wax mais heureusement bu ñu manipuler khadim ngay ngi fi pour léral ne li manipulation la parce que gis na ñu jël ay auto gendarme yu ñu talé congo <laughs> ñu ñëw né sénégal té ñu lér nañu matricule auto bi sax matricule sénégal mais lool luñ ci gagné xam nga lool luñ ci jublu woon mhm. tey booy bu togon fi sa kër gi diko sétal Mm-hmm. léegi nekk nekk euh, Kaolack. Mm-hmm. danaan bon gannaaw dakaar mi ngi boy mm-hmm. te dara boyu fi. léegi image yooyu mu ngi negal ma boyal. waa ñu tam ñu bokk. trompeur looloo tax yooyu bu buñ ci war a gëm. mais mais mais grand Khadim. yow parti bu juddoo si sos. parti bu juddoo si saaga. parti bu juddoo si wax naka sudul dëgg. est-ce que parti boobu am na am na am na mujj parti boobu bu amoon mujj xam kii parti Ousmane Sonko la parti personnel la. Mhm. boo bëggee dégg-dégg parce que gis nga ñi topp ay ñoom Birame Souleye ak ay jomaay ñooñ compté wuñ dara. Mhm. gis nga ñooñ muñ ne xam nga projet la. Mhm. un projet bu fekkoon ne am na tey jii bu doon ci réewu Europe bee wala États-Unis fu nekk. Ousmane Sonko day teggeeku parce que dafa am. dafa war a dem tribunal leer setal dara. dafa waroon jël numéro 2. ñu teg ko. Mm, mm. parti bi dem bu dee projet bi lañ gëm. dafa waroon démissionné donc. démissionné. ba mu leer muy doog ñëw mais en attendant ñu teg Birame Souleye. ok wala ku leen meex. Mm-hmm. mais dalay lay ne parti bi yow xam nga ne gëmuñu projet xamuñu lan mooy projet ba xamuñu dara. Mm. waa ji moo leen manipuler. di jaay ay Thomas Sankara ñu topp ko. Sonko bu bàyyi woon Pastef suba doo déggati Pastef amul leader bu ñu fay topp. li jënte wuñ leen sax. donc nous, c'est parti personnel personnelle. Ousmane Sonko nous ñuy suivre mais suivre un projet parce que xam avons xamul lan Le projet

accusé kenn amul benn preuve hmm. amut te du mës a am fi lay mujj di làq toog woo booy suñu doom def len ay bouclier ah nan ñew len projet bi da ngeen wara ray rey seen bopp jar na seen bakkan ah nangam nangam ñu jàkk jamm do da dafa war a dakk macha allah donc gis ngeen suñu grand Khadim Gueye eh. ah waxna wax yu am solo te li ku ko deg nak mo wara a dugg ci say nop alhamdullilah rabbil alamin ba senegal euh, ñu bari deg nañu olof motax ñi préférer di def ay live sax ci olof hmm. kon manipulation bi doon jàll bu njëkk tax ñu bëri gumboon tëxoon luwoon ñëw aveuglement topp waa ji di Ousmane Sonko euh, benn waay bu nekkoon impôt domaine pendant 17 ans euh, te Sénégal yaa gën a métti Euh, parce que jamonoy Abdoulaye Wade 2011 euh, ñu ngi doon gis inondation ñu ngi doon gis courant bu coupé ñu ngi doon gis jamono jooju ah. ñu ngi doon gis Y'en a ñu ngi doon gis société civile bi mais boobu mësuñu gis benn photo Ousmane Sonko sur le terrain parce que moom boobu mu ngi mu ngi encaissé ay millions de toog <laughs> léegi mu victimisé ñu dàq ko fu muy liggéey mu ñëw bëgg wane politicien la donc ah. tey ah. yaakaar naa ne Ousmane Sonko bi du kuy sori Pape Djibril Fall. Euh, moom it yaakaar naa ni daf na sorti te ñëpp xam nañ ne Pape Djibril Fall. Euh, ci opposition bi la bokk. ñu déglu Pape Djibril Fall lan la wax ñu ñëw. gàtt sa pendant des années may kenn jàmm tëj tijji tëj tijji ci gàtt sa gàtt sa boobu ci lañ rey maître Babacar Seye ci gàtt sa gàtt sa boobu ci la ñu ay kër ci la ñu ci la nekk. homme politique au Sénégal yi di xuloo di xeex faté askan une année blanche en 88 di xuloo di xeex faté askan wi une année invalidée en 89. En 68, c'est ça qu'on a vécu au Sénégal avec les 68 heures. En 88, en 89, en 92, nous avons Et nous avons moo mangi ngi ñaan ci jamono ji aussi di conduire réforme bu Diouf plein pouvoir mu def le code consensuel de Kéba mais un code encore une fois ne vaut que par son application malgré ce code en 93 maître Babacar est assassiné au Sénégal malgré ce code consensuel 93, 94, la dévaluation arrive. Sénégal sénégalais ne Diouf monsieur le président les sénégalais sont fatigués 81 déjà les sénégalais étaient très fatigués mais le Sénégal aussi est victime de l'immaturité de sa classe politique on n'est pas capable de s'élever Amna ñoo xamanteni tay buñu bu ñu sañoon su ma ñëwee taxaw damay yëkëti kaddu yu ñaaw yu rëy di ko ci ay gor man kuy xaar ci man loolu doo ma ci gis parce que duma ko def. parce que duma ko def parce que li tax li tax duma ko def moy amna ci lo xamanteni so ci nekké et il faut qu'on se parle les yeux dans les yeux.

ci loolu ngay nekk une heure trente à la télévision mais on sa nest finalement lan ngay finalement tu bandes les muscles pour aller au combat à la confrontation mais du moment du durée de situation bi qui n'est que le prolongement qui n'est que l'aboutissement d'un processus qui n'est que le euh, euh, tey jii boo les jeunes en politique les jeunes en politique tey jii boo leen jëlee dinañ leen jàngal ku dinañ leen jàngal saagal donc kii doon wax léegi Pape Djibril Fall yaakaar naa ne moom it lu mu woote mooy xool nu ñu tabaxee Sénégal pas dóor pas saaga pas xaste loo jàngat ci kàddu Pape Djibril Fall yi Pape li may wax mooy un jeune boo xam ne ah nëbbuma ko tey bu nu woon Macky Sall hmm. politique politiciens yi ne Sénégal yëpp moom laay dem jàppal ak fidélité bi mu am ci président Macky man dama ko ko wax moom ci boppam. c'est ñu toog ma ne ko booy parce que sama booy la. Mm-hmm. day jël téléphone di ma woo. di ma laaj samay conseil mm-hmm. may waxtaan ak moom mi ngi may dégg. macha allah ba bi muy nekk day nekk candidat pour député. Mm-hmm. ah juróom yëm njëkk woo ci laa bokk. c'est ça annoncé ma ko. donc man dama koy tagal. mooy koo xam ne j'aimerais un jour gis ko mu nekk président de la République Sénégal. parce que dina incarner yar bi nga xam ne moo ne ci Macky Sall ñàkk bañ a tontu gi. Hmm. law ay waxtu wooye discours bu violent am doo ko dégg ci kotam te yaram mayu ko loolu. te hmm. Pape def loolu. Hmm. ok te li mu wax nii c'est vrai tey débat yi ngay dégg fi lan la. ay troisième mandat du fi amal. waaw nga béy heure di ñu rom mais Macky Sall kenn dégg ko mu ne dama koy wut wala wutuma ko. ok c'est pas le moment. yow am nga projet waxal projet bi lan la. kii ñëw ne man lii laay proposer Sénégalais yi. Macky Sall en 2012 bi ñu taxawee fi naan troisième mandat du fi am. bi ñuy wax. pourtant am na Abdoulaye Wade dem na def euh, élection boobu mais Macky Sall nekkul fi di insister ci troisième dafa dem ci àll bi àll boobu ma lay wax moom laa doon wane ci opération jant bi ah. Mm-hmm. Macky dafa dem gis ci àll bi gars yi ne moom ma ngay campagne ñoom ñu ne fi naan troisième mandat noo di reyante ba mu ñëwee. Ablaye Wade dem na nekk na candidat kenn dindiwu ko mais xam nga lan moo carte yañ dugal lañ dugalal Macky Sall mu ne ko tegge teg ab Ablaye Wade nangu ko donc débat yu inutile yi ñuy def di ñu tànkal amul benn chaîne booy jàpp te nekkuñu di wax 3e mandat dañ ko fi tere dañ ko fiy aayet bu tay sonko na la valider nako ko bi jaas wax duma genn duma ray seen waxi demb de nga barte sax taxaw naan ñun politiciens xam nga xamoon nañ ne Ablaye wad amna ci droit donc xam nañ ne Macky Sall amna ci droit mais negal ñu jaxase ko ak peuple bi ba nga xam ne du ko fi def mais Macky bu démé cour constitutionnel bob ba mu bëggé wañi juroom ñaari at yi def ko juroom dañ ne ko ta ne mm. est-ce que kenn genn na fi ne ko par force mm. da koy def dañ ne woon non dañ ca d'accord. Mhm. moom da ko ku bëggoon wàññi nag juróom-ñaar bëgg koo def juróom. kooku est-ce que nekk na ci détails yi ñu nekk ci ray nit ñi mhm. tànqal nañ ci ay mhm. troisième mandat. dégg nga fi benn candidat ay Bougane day génn ay accusé ay Mansour Faye ay quatre-vingt-dix millions pour que. milliards pour que nit ñi ak presse bi wax ci moom mm-hmm. mais du ñëw ne lii laay defal sénégalais yi Sonko déggoo ko lu ay question ay Mame Mbaye Niang sàcc na lekk suite botte dañ ma comploté ak affaire yooyu mais projet bu doo ko fa dégg mm-hmm. Khalifa Sall dégg nga lan mooy projet lan mooy seen lan la ñuy proposer sénégalais actuellement jusqu'à après xam nga kan mooy def acte yi hmm. son excellence président moom nekkul rek gis nga plan ba mu leen tegaloon ñu hmm. ngi koy développer chaque jour bàyyi leen ñuy nekk fi di ratatati di ñu tànqal di ñu sonal Pape Djibril nag mi ci lancé boobu il est en train de travailler xale la am na yar am na jàng am na technique am na lu mu xam aussi ci àdduna te buñ ko accompagner bu deful erreur yi man wax naa bul def erreur yi Ousmane ko def. Mhm. ay jigéen ak yu ñàkk fayda yi yenn place ñu la fay fekk yooyu bul ko def. Mhm. bu mu am. suivre wutal sa benn plan. sa idée ci Sénégal. Mm. ok mm. li fi baax nangu na ne am na nga xool lool ci dolli nga ne Sénégal yi lii kat am na fi dinaa leen ci dolli. am na solo loolu mooy lancement bu wàccul ci yoon wi billaahi dana mës a nekk président. am na solo macha allah donc gars yi ba léegi yéen a ngi live euh, ak Kaliphone Sall ak grand frère am grand Khadim Gueye borom Italie. ah jóge si diaspora bi ñëw Sénégal ñëw ba sama kër seet ma ma am si contentement lool ku xam grand Khadim Gueye nag xam ne moom président Macky Sall moo dee si xol bi. des années et des années mu ngi koy défendre. Xaadim Macky la tudd moom <laughs> wax waxoo Macky waxoo Youssou Ndour bu bëgg daal neel père Macky neel grand Youssou Ndour jeex na loolu daal moom moom boo laalee Macky laal nga boo laalee Youssou laal nga ko leneen moom lijjantiwu ko donc muy nit ku macha allah ku am xam-xam euh, nit ku pertinent sénégalais yi bëri di kontaan si moom di ko teewlu si YouTube bi euh, am chaîne YouTube bu mag euh, muy Khadim Gueye vraiment Khadim Gueye TV man nga dem YouTube bi abonné Khadim Gueye TV mm. vraiment nit ku baax nit am am am am diine nit ku am yar mm. euh, sénégalais bu bëgg Sénégal parce que mm. yalla dogal na def na Italie des années et des années bu ko neexoon du ubbi gémmiñam ne mak Sall fi gën day continuer ci Italie tabax na kërëm ainsi de mais dafa ne réew mi am ku gën président mak Sall té lu ñuy naan mak dina tëdd di gis xale toog si château ba du gis dara mooy xale yi jamono ji topp Ousmane Sonko mën nañu toog sa vingtième immeuble ba mm. di yaakaar ne dinañu gis fekk duñu gis mag ñi nag toog fu ñu toog si mm. sajaada ba di gis mm-hmm. lu nar a am yi ëllëg mm-hmm. Ousmane Sonko bi arrangé wul Sénégal mm-hmm. parce que souvent dañuy naan lu lu lu tassee ba rek nuyu woon na ca ngoro ga Ousmane Sonko bi buñ ko joxee réew mi Sénégal day tàq. parce que nuyoo na. ci ba mu bëggee réew mi. nit koo xam ne mosoo ko dégg. Mhm. mu wax kàddu goo xamante ni <laughs> kàddu de rassemblement la. kaay leen ñu juboo bokk ndey ak bàyyi doon benn euh, Sénégal dëkk maam Ahmadou Bamba Sénégal dëkk maam Alaaji Malick mhm. discours yooyu doo ko dégg mhm. est-ce que pare ngeen pour xeex yàgg nañ ko dégg si moom est-ce que jaral na leen ñàq seen bakkan yàgg nañ ko dégg si moom ñii ay sàcc lañu bu ma jëlee réew mi dem leen di tëj waa mais ku toogagul def ci biir xolam ak ci biir xelam bu ma toogee damay troxal jaamu yàlla yi nga xam ne liggéey rek la ñu gëmoon est-ce kooku yàlla dina ko jox nguur koo xam ne lu mu def si bopp yëpp mooy maa ngi xool ñan laa nara a toroxal ëllëg yow kooku xam nga ni yàlla du la mës a jox nguur. bu ma toogee général bi dina am problème. bu ma toogee procureur dina am problème. bu ma toogee ministre sangam dina am problème. bu ma toogee président bi dina am problème. <laughs> bu ma toogee yenn journaliste yi dinañ am problème. bu ma toogee classe kalifan bi dinañ am problème. moom ñu mu ah, dajale ñu dara am problème. dafa bëri kooku kooku kooku suñu borom du mës a lu lu lu lu. non jamais parce que ñu ne sunu yaay ñu ngi ñaan parce que arrangé wuñu ah, sunu papa yi ñu ngi ñaan Macky Sall ay mbokkam yi ñu ngi ñaan ah, yenn procureur yi seen mbokk yi ñaan mm-hmm. te lu toll ne général nga koy dankaaf mm-hmm. nga koy menacé mm. da nga ñàkk xam mm. parce que tey même président de la république sañul menacé général non parce que dëkk yi bëri bu ñu tàqee tey mm. musiba naaru laay am foofu rek général bi la neex wala colonel ba te heureusement tey Ousmane Sonko bi jubawut ak général jubawut ak procureur jubawut ak juge jubawut ak journaliste yi jubawut ak artistes yi jubawut ak mbër ñi moom kan la jubal boppam. moom kese baax. boppam moom daal il est le seul il est le bien il est keneen baaxul. mu sell mi. waaw mu sell mi mu am yenn yambar doon ay taalibeem gëm ko am nañu droit ngeen gëm ko. sell bi ñun on est démocrate. newuñu bu kenn gëm Ousmane Sonko. mais dañuy ne. Mhm. bu leen gëm seen Ousmane Sonko fin de fer bi. Mhm. ne ñun ñii nañu bàyyi suñu jamaa bi di président Macky Sall. loolu moom ba sénégalais yi demee def jàngat. gis ne président Macky Sall ak Ousmane Sonko comme yàlla ak yàlli ci cadre yar ba. si mhm. njàng ba. si teggin ba. ci xam àdduna. ak ci mbappat. xam nga président Macky Sall tey mën nañ ne jaar na direction nekk na directeur. nekk ministre de l' intérieur. nekk euh, président euh, assemblée nationale. nek maire koku dafa dafa dafa mbappat mais ben Ousmane Sonko bo xamné ne imposé même <laughs> 17 ans mosoo deg chef <laughs> mosoo dégg mosoo deg, il est le patron il est le directeur déedéet il était un employé 17 ans de service nga qu'est-ce si employé Koku sa xam-xam soriwul Koku yalla ubbilu la koku yalla ubbilu la Ndeye Touré ma lay nuyu baax que sañ partager cœur yi mm-hmm. yalla bu lay ubbil mm-hmm. da lay jële si un di la andi si deux di la yóbbu si trois di la yóbbu si quatre ba di la yóbbu si cinq. tey loolu la def président mag sàll ñëpp xam nañ ne ay waajuram. jàng nañ ko. ay néew di doole lañu woon. moom si boppam reconnaître na ko. bu doon jàngi souvent day xëy sax du ndékki. kooku yàlla moo ko téel loxam. yàlla moo ko sàmm yàlla moo koy aar ak ñaanu waajuram yu mu am. te gis ngeen même profu président Macky Sall bi ñuy wax. Mm-hmm. dañuy ne kii moo gënoon a yaru ci école ba. Mm-hmm. est-ce que mës nañ dégg benn prof Ousmane Sonko génn di naan Sonko il était le meilleur ci école bi déedéet kenn xamuloon archive am te it Ousmane Sonko 17 ans au pouvoir mm-hmm. nekk un Casacé mm-hmm. ñu gis Casamance mm-hmm. yàgg na am ay jafe-jafe ba nii mu nekk maire bu Casamance gisuñu fu mu dajalee vingt femmes jox leen même bu dee vingt machine u ñawukaay gisuñu ko tous gisuñu fu mu dajalee cinquante jeunes jëndal leen même bu dee ay càq-càq parce que gis nañ Barthélemy Diaz moom grand euh, mairie Dakar. Mhm. jëndoon na fi sax ay càq-càq jox. booy dagguma la. Ah. gis nga càq-càq yooyu mooy mooy Jakarta yi. Mhm. daf leen ne léegi booy Casamance yi. Ah. dañuy fay cent francs par jour. <laughs> <laughs> mais le problème moo nekk. calcul la affaire boobu. ak ñum dàq. non cotiser cotiser si xol bi la ko def. parce que moo ma sonal tey dama ne Ousmane Sonko bi buñ ko falee est-ce que du ne saaku ceeb bi <laughs> seer na il faut ngeen cotiser. dawlin bi seer na il faut ngeen cotiser. parce que lu yomb la bëgg. moom tout le temps militant yi il faut cotiser. xeebuñu téeméer xeebuñu dërëm kooku mënuñoo arranger. te duñu mën a arranger non bégguñu parce que man bu doon gis naa si seen réseaux sociaux yi. fu ñu ñëwee ne cinquante jeunes Ziguinchor. war a seen bopp yu xonq yi. Ah, waaw dañuy mer dañuy mer parce que ñoom bëgguñu lii. kontaan nañ ci xam lii lii réalité xam nga tey neexul. xam nga xam nga yàlla suñu borom comme ni ko grand neexul. dëgg kaani la koo ko tuuf mu tox ñu. ñun ñuy wax ni inventé wuñu dara. Mm. Ousmane Sonko jox nañ ko mairie Ziguinchor am na léegi atu yàlla parce que février daaw la woon ba jóge nañ ci février. Mm. mairie Ziguinchor am na budget. Mm. mais gisaguñu tey. mairie bi mu ñëw si social taxawu cinquante jeunes ne jënd la leen jakarta yi trois cent mille gisuñu ko Ziguinchor bëri na ay jigéen yuy dem di béy ji tool gisuñu fu mu jëndee sax ay gopp bay leen ko gisuñu encore une fois Ousmane Sonko ay étudiants sax mën na leen may na leen bourse donc encore une fois day wane ne que Ousmane Sonko bi du nit koo xam ne kuy partager la du nit koo xam ne kuy mën a dimbali nit la sëgam mairie lañ la jox mënoo avancer dara si mairie bi ba bu ne yaa ngi ndakaaru di jaabaa jonge di taxawaalu téye réseaux sociaux yi di wax jamono jooju ñu ngi la dénk mairie man xaw ma Ousmane Sonko mooy. gis nga booy nekk Ziguinchor. di mhm. jàng fii ci ndakaaru tout récemment Doudou moo leen fayal. macha allah seen apartement bi nga xam ne. fa loge Sonko daf fay dara. parce que ah. booy yi dañuy réew. Ah. dañuy jaay ah. <laughs> nga. Doudou moo ko def tey ji bu ñu amoon élection Ziguinchor Doudou Ka koy gagné. Hmm. Doudou Ka man maa ngi woon seeyu de. Hmm. booy. boo xoolee Macky Sall. demal pont Marsassoum bi nga dem nga hmm. taxaw mais réalisation yi parce que président def foofu ah non mais da ngay toog émotion ngay am. dëggantaan jooy presque ngay def. macha allah naan waa ji ñu jox ko mairie boo xam ne échantillon la waroon nekk. <laughs> mu démontre ma nan lay gouverner ñu doo koy jox Sénégal. ay poubelle ay ay ay ay ñaari yóbbu poubelle sax yàq la ko joxe. <laughs> Ah ah. doy na waar mel ne na waar lu ñu nar a wax yëpp xejul si tey. vraiment dañuy kontaan gars yi nga xam ne ñu ngi jël seen temps yëpp di ñu suivre. am na ñoo xam ne dem nañu naafila ji. Mm. Euh, tey ñu bëri ñu ngi live télé yooyu yëpp émission yi bëri na mais yéen fii ngeen préféré mm-hmm. déglu ñu bàyyi suñu xel mm-hmm. euh, donc dañ leen di rek sant gërëm leen di leen ne déwénati leen mm. euh, weeru koor gi ñu nar a tàmbali suba mm-hmm. yàlla bu kenn manqué ci yéen yàlla nañ ko woorandoo ñu ñëpp yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar te it ñuy ñaan yàlla sunu borom. ndax dégg naa ustaas yi di ko wax weeru koor dañuy tënk saytaani. yàlla nañu yàlla tënkal Ousmane Sonko tënkal yàlla nañu yàlla tënkal Ousmane Sonko. yàlla nañu yàlla tënkal Ousmane Sonko. yàlla nañu yàlla tënkal Ousmane Sonko. yàlla nañu yàlla tënkal Ousmane Sonko. onze billahi minal Ousmane Sonko rajim. onze billahi minal Ousmane Sonko rajim. yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ma bàyyi grand Xaadim Gueye rek. mu tàggoog yéen plaisir la woon grand frère. avant tout vraiment nga seet si ma dafa mën live bi. macha <laughs> avant sama xol feex la remercier. Uh-huh. ci invitation live bi man dama fi ñëwoon. justement pour rek xam nga. sa sœur bi génnoon at dëggantaan man xalaatu moon ñu def. live boo ko day mel ne loolu moom. fi indi non xam nga mm-hmm. liñ naan. Euh, c'est occasionnel si si maa la ko proposé yaa mi ngi noonu mm-hmm. mais man dama doon ñëw gis la après delluwaat bale mu nekk mm-hmm. xam nga donc di remercier di remercier ñii lay seetaan di remercier ñi nga xam ne aussi dañooy suivre di remercier son excellence le président Macky Sall li def Sénégal di ko ñaanal euh, fan bu gudd di ko ñaanal fi mu bëgg a yóbbu Sénégal àgg fa moo ak soxnaam Ousmane Sonko di ko ñaan mm-hmm. di ko ñaanal bu fekkee ne feebar boobu muy wax ne dëgg la ci moom bu dee dëgg la ñaan <laughs> ay mbiram leer ci kanamu. malade malade trucage nañu dimbali na ci koor gi. na trente nit ñi woor. mu doomu jàmbur ci biti si noonu ñëw jiite xeex ba damuy waxee moom mu dem xeex. def naa gars yi du ñu woor ba ngoon ngeen ñëw gis nga gars yi dañuy feras de booy yi ñëw fi naan dañuy jéem a. fara fara fara yaa ngi def liggéey ba am solo fara fara bi mu ngi def euh, liggéey ba am solo di partage ay vidéo. ok tarkala mu ngi yee ñu bëri si réseaux sociaux. ak booy yi aussi booy nekk ci TikTok bi ah. Hmm, maa ngi yi nekk ci TikTok bi. gaa yaa ngi

gars yi ne ci tiktok bi ñu ne ci Facebook bi YouTube bi. jàppale wu ci kenn président Macky Sall. c' la wax ngir seen téléphone. amul ministre <laughs> amul DG boo ciy woo. c' est malheureux wuyu te c' est pas normal. c' est malheureux c' est malheureux. bu xeex bi amee ñun ñi ñooy toog di ñafe. bu saaga yi ñu saaga ñun ñi lañ koy saaga. ñoom ñoo ngi seen bureau yee. duñ wuyu kenn. doy na waar duñ répondre kenn. jàppale wu kenn président il est temps xam ko Marème Faye xamal loolu. wax leen ne nañ ubbi seen téléphone yi teg ak nit ñi booy ne ci tiktok beeg ñëpp dañu am pour di jàppale boo leen joxul sax nga ne leen jaaraama nga ne leen waaw góor waaye ñuy reyante du matin au soir te dara defuñu ko ci dogguma ñoom ñooy dogguma la booy tiktok bi fan yëpp dañ may woo Kaliphone ñun de président lañ doon défendre mais suñu téléphone yàqu na Kaliphone amuñu connexion Kaliphone jàppale ñu si autorité yi ñu jàppale ñu te liggéey bu extraordinaire liggéey bu am solo la booy yi nekkee si TikTok bi xam nga TikTok dafa bëri ay jeunes léegi boo duggee si TikTok bi jeune yëpp bàyyi nañu Ousmane Sonko jeune yëpp koo si wax mu ne la man de Sonko laa nekkoon ah. mais grâce à yi may dégg ak ah. vidéo yi ngeen wane ay preuve parce que sénégalais dafa bëgg nga koy ah. tegal preuve bu ñu jëlee ay waxu Ousmane Sonko démb ñëw teg waxu Ousmane Sonko tey <laughs> ndaw ñi am nañu xel dafunu dinañ xam ne kii day victimiser wu ainsi de suite ainsi de suite donc di leen rek déwénati leen Euh, kontaan nañu vraiment yàlla yàlla defal ñëpp jàmm yesu ñooñu uh-huh. mais nag damaa wax benn affaire day mel na man mii nañ maa ji gis nga franc mali wu Macky Sall ak lu takk ci Macky Sall musuma koo jot maa koy wax wax ni du DG du ministre du président du Marème Faye Sall du kenn dërëmam musuma koo lekk 2017 ah. ba tey yéen ñi may accusé naan ñi ngi lay fay ah. bu ma leen baalu ci weeru koor bi dañ ci génn xam nga ni woon ah. doon dëgg la lii la ñuy daj ah lii bi ñëw fan yi di combat xam nga sànq ñu si waxtaan Kaliphone bii ñëw xam ne Sonko bi buñ ko bàyyee mu taal sunu réew barke yonent bi moo tax ma jël fan yi di xatraay di rey sama bopp mais amul ku ma jëndal connexion amul ma jox matériel ñu bëri ñu ngi gis ay Kaliphone defar na néegam dafa amul ministre bu mën a wax Kaliphone jëndal peinture eh, amul ku directeur bu mën a wax Kaliphone maa ko jëndal ciment amut te ñu ngi ñuy seetaan ñu ngi ñuy gis mais ku ñuy defaral yàlla na la yàlla fay sa xol ku ñu defaral it c'est pas forcé ñun de toute façon ñu ngi doon dund avant président Macky Sall te dañuy continuer di dund bu neexee suñu borom après président Macky Sall xam ngeen seen wareef yéen a ngi jàppale yenn journalistes yi def ak ñoom ay convention te journalistes yooyu ba léegi ñooy bëgg nguuru président Macky Sall daanu yenn journalistes yi nag laa wax ñooñu ñooy jox ay nit ay information fausse information pour yàqal président Macky Sall ñun nag saa yuñ fi toogee mm-hmm. bu ñuy wax àdduna daf ñuy gën a mën a dégg sax que journaliste yooyu ngeen di jox alal kon ngalawaay il est temps ngeen ñëw xool njabootu président Macky Sall yi nekk si réseaux sociaux yi mm-hmm. muy si TikTok bi muy si YouTube bi muy si Facebook bi ngeen xool nu ngeen leen jàppale loolu méttiwul même bu dee benn yoon sax si at bi day am solo sant nañ leen gërëm nañ leen yàlla na yàlla def jàmm ci biir Sénégal ba beneen live incha allah jaa ngeen jëf ak grand Khadim Gueye au ba beneen